ma jottali leen communiqué bi bàyyee ko ministère la santé et de l'action sociale tey bésu alarba fukki fan ci weeru février mi ñu nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak ñett test yi def ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci.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 fukk ci Dakar Plateau Rufisque ak Thiès juróom-ñaar ci Mariste ak Popenguine juróom-benn ci Géejawaay Médina ak Cajaay juróom ci Pikine juróom ci ci Birkilaan ci Jëppal Kër Massar Touba ak Ziguinchor ñeent ci Ngor ak Pikine ñett ci Diourbel Golf Sud Kédougou Ndofane Ouest Foire Pout Sokone ak Yoff ñaar ci Diamniadio Fatick Foundiougne Grand Dakar HLM Kolda Koungheul Linguère Matam Mbour ñaari Tali Nioro ak Passy benn ci Almadi Bambey cité CPI cité douane cité Fadia cité Gadaye Fann Gibraltar Grand Yoff Gueule Tapée Guinguinéo Liberté 5 Malem Hodar Mamel Mermoz Ouagou Niayes Ouakam Parcelles E sacré Saint-Louis Sicap Baobab Tivaouane ak Zac Mbao ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi malade ñi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wala ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde juróom benn fukk ak benn malaad ñoo nekk réanimation fukk ak ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb talaata juróom-ñeent fan ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak benn si ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñeent ak ñett téeméer ak juróom fukk ak benn wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi ak si malaat yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé et sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm di ñaanal tamit ñi nga xam ne génn nañu àdduna yàlla xare leen àjjana ministère de la santé et l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bos bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen i njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seen i masque ni mu ware masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seen i loxo saa su nekk ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité pour doomu jàngoro yi bañ leen a topp di teel a dem hôpital wala dispensaire bu leen gën a jege saa bu ngeen nemmeekoo ko yaram bi dafa xaw a sutante bu leen fàtte tamit su ngeen naree dem ci yenn bërëb yi di dandante bala ngeen di fa jël doomu jàngoro ji ministère la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm.